ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu seen mbokk Mourtada Mbacke Abdoul ma sàmba moo am mbégte ci tàmbali ak yéen benn ci téere Serigne Touba yi nga xam ne da koo taalif ngir laay biire mbokki jullit ñi di leen ci leeralal seen wàllu diine ni ñuy def ba mën a xereñu seen diine ak ni ñuy def ba mën a dund seen diine muy téere bu ñuy wax nahyu qadaa il xaaji fi xasdi zarci cheikhina dal xaaj muy téere boo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko way ngir jàngale ci naka la nit ki dem ba mën a am naka la nit ki di mën a def ba mën a am ay teggin maanaam teggin nag boo ko xamut mooy doxalin wu rafet wi mu war a ànde ak moroomi jaamam ak doxalin wu rafet wi nga xam ne moom la war a ànde ak boroomam kon ñu ngi dimbandikoo ci kàttanu yàlla ak tawfiqam fas yéene taamul téere bi kon bismillahi rahmaani rahim sëriñ tubaa ci tàmbali nahju qadaa il wax na ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama taslima kon sëriñ bi tàmbali na nahju qadaa il ci bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim nag dañuy njëkkee ak yéen prix mi ngir ngeen mën koo jàpp ba noppi doog a ñëw ak yéen ci maanaa mi ñuy wax ni prix mi mooy bismillahi maa ngi tàmbalee ci turu yàlla arrahmaani mi aji yërëme ci àdduna arrahimi mi aji yërëme ci àllaaxira loolu mooy prix mi am na ñuy wax ne arrahmaani aji xéewale xéewli li ji arrahimi aji xéewale xéewli sa yi waaye firi mu njëkk mi njëkkoon wax nag moo dëppoog baat bi nga xam ne mi ngi jóge ci arrahma muy yërmande kon loolu mooy firi bi mi sëriñ bi day jubloo wax ne lii may def maa ngi koy tàmbali ci turu yàlla turu yàlla bi nga xam ne mooy allah maanaam maa ngi koy tàmbali ci turu yàlla di ko tàmbali ci ndigalam di ko tàmbalee tam ci mboot yi nga xam ne baatub allahu làmbo na ko te mooy baat bi nga xam ne mbooleem turu yàlla ëmb ëmb na leen kon li bëgg a wax mooy lu waaye di def rek normalement da nga ko def ci turu kenn benn nga def ko ci turu bakkan wala nga def ko ci turu saytaane wala nga def ko ci turu bëgg àdduna wala leneen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi bi muy bi suñ borom wàccee ci moom alquran saar bu njëkk bi da ko wax ne ko iqra bismi rabbika lazi xalaq jàngal waaye nag da nga jàng ci sa turu boroom ndax nit ki mën naa jàng ci turu laneen kon lépp loo def nga def ko ci sa turu boroom loolu lu am solo la moo tax gis nga saare alxuraan yëpp ba mu des benn te am na sabab mu ngi tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim yonent bi wax ne lépp loo xam ne am na solo buñ ko tàmbalee wut ci bisimilahi rahmaani rahim barke ba day manqué te tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim day tegtale ak womatu goo womatu ci sa boroom ak nangul goo nangul sa borom ak déggal goo ko déggal jeexal ngoo jeexal sa lépp ci jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem moo tax kon bisimilahi rahmaani rahim maanaa mi mooy loolu mooy li may def maa ngi koy tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne mooy yërëmi ci àdduna ñëpp yërmande matale na ñëpp ci adduna mooy arrahman ñëpp ñi ko gëm ak ñi ko gëmut ñi koy topp ak koy mooy bàyyi may ak nit ñi ak mbindeef yëpp ci yërmandeem yërmandeem ji mu leen di jox ñoom ñëpp moom lañu ki koy def nag mooy arrahman nga xam ne ci la lépp di jage ci àdduna arrahim nag moom mooy aji yërëm ci àllaaxira nga xam ne ci yërmandeem ci lay jagleele yërmande jooju ci lay jagleele ñi texe ak texe ak yërmande ngërëmul yàlla ak xéewali àllaaxira kon loolu mooy maanaam bismillahi rahmaani rahim mu teg ci nag julli ci yonent bi ñaan xéewal maanaam ak musal mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak ay ñoñam ak ay àndoom ñi ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ko toppoon ci lislaam kon ñu ñëw ci primo sallallahu doog a ñëw ci maanaam yi wax ne wa sallallahu yàlla wa salla yàlla xéewale allahu yàlla ala sayidina ci sang muhammadin muhammad wa ala alihi ak ci ay ñoñam wa saxbihi ak ay àndandoom ci lislaam wa sallama te yàlla musal leen tasliman ak musal loolu mooy firi mi nag mooy sëriñ bi day ñaan yàlla moo wàcc xéewal ak musal ci ki nga xam ne mooy suñu sang maanaam moo ñu féete kaw ci jikko ji rafet ak ci daraja te mooy ñu wooye muhammadu rasulullah nga xam ne muhammad maanaam li muy firi rek mooy kuñ sant sant gu bari tur wi suñ borom moo ko ilham moo ko yënkeewaloon moo ko sànni woon ci xelum kilifaam nga ko tuddoon moom yonente bi sallallahu alayhi wa ngir suñ borom moo namoon ci moom maanaam baat bi dëggu ci moom moo tax mu joxoon ko mu mu sànni woon ci xelam mu tuddi ko Muhammad muy koy sant sant gu baree bari kon Seydina Muhammad moom suñ Sëñ di ñaan suñ borom mu wàcc xéewal ci moom wa ala ci ay ñoñam ñoñam nag buñ ko waxee baatub aal ci arab mooy say jege ñaare mooy ñi bokk yow askan waaye buñ ko waxee fii nag mooy ñi bokk ak moom askan ba noppi wëlbatikuwaan nag bokk ak moom pas-pas ñooñu mooy al aal aal mooy ay ñoñam léeg-léeg nag ñu wax ko dugal mu jublu ci mbooleem jullit ñi rek ñi bokk ak yonent bi pas-pas kon mi ngi ñaan yàlla mu wàcc xéwal ci suñu sang Muhammad ak ci ay ñoñam wa sax bi ak ay àndandoo mi ngi jóge ci soxba bi firi àndandoo mooy ñi nga xam ne dañoo àndoon ak moom saaxabuhu ala aqidati al wa wa maatu ala saalika mooy ñi àndoon ak moom ci pas-pasu gëm yàlla te dee ci loolu nga xam ne dañoo dundandoo ak bi benn ñu gis ko ci seen bët wala am na ñeneen ñoo xam ne jóge nañ fi yonent bi nekk gëm yonent bi fekk leen fañ nekk woo leen ñu dugg ci lislaam ñu nekk ci lislaam jooje ma faatu ca buñ gisee buñ gisee yonent bi nga xam ne dundandoo nañu moom saxaaba waaye buñ ko gisut tam am ñu leen jot lislaam ñu dundandoo yonent bi it ba tey saxaaba lañ waaye li am solo la ngir ñu nekk saxaaba mooy ñu dee ci fas-fas boobu. kon ay àndandoom ci lislaam mooy ay saxaabaam sax bu nag baat buy tegtalam mbooloo la bu dee kenn ki mooy saaxib bu dee mbooloo wala euh, bu dee mbooloo mi ñooy asxaab léeg-léeg ñu di ko ñu di ko kennale saxaabi yu hmm, mooy ko xam ne ànd naag yonent bi kon ay àndoom ci lislaam suñu yonent bi mi ngi ñaan yàlla mu wàcc ci ñoom xéewal wasallama te yàlla musal leen ñoom ñëpp mooy wàcc ci yàlla wàcc ci yonent bi ak ay ñoñam ak ay saxaabaam musalam akuk xéewalam akuk musal kon yàlla musal leen tasliman ak musal mooy ak musal gu kawe kawe goo xam ne gu gu ràññiku la Sëriñ teg ci wax ni xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ñu ñëw ci firi mi ba noppi doog a ñëw ci maanaa mi mu wax ne xasbuna doy nañu allahu yàlla wa ni'ma te baax na alwakiilu aji saytu ji aji saytu maanaa mi sëriñ Tuubaa fii dafay bëgg a joxe maanaa mu rëy muy ak wéetal yàlla ak doyloo yàlla ak jox yàlla cëram ndax xasbunallaahu wa ni'mal wakiil ci xeeti saabal yi gën a ci la bokk moog laa ndax baat la buy tegtale ne yàlla rek moo fi nekk lu yàlla ci coobare yàlla lay doxe te ku yàlla féetewoo dimbali la doo soxla ndimbal kaneen waaye ku yàlla seetaan tam ku la mën dimbali la jariñ moo tax muy wax ne xasbunallahu yàlla doy nañu yàlla doy nañu ndax moom rek moo doy ku dul moom moo moo lay doy bu la bu doo am dimbal mooy xasbunallahu yàlla doy nañu wa ni'mal wakiil aji saytu ji doy na baax na bi man aji saytu mooy ki nga xam ne mooy doxal mbir yi mooy euh, tëral mbir yi di ko doxal ci ak xereñ gu mat sëkk gu rafet aji saytu jooj nag baax na maanaam doy na loolu mooy maanaam ndax lépp lu ndox ndoxin war a fet ci doxalinam la lépp lu mu génne dam loxoom loola du jag te dara mun a génn ci loxoom lu génn ci loxoom lu tut tut rek loola day daal di alku day daal di yàqu kon asbunallahu wa ni'mal wakil baatu wéetal yàlla bu màgg a màgg la boo xam ne sëriñ bi taam leen ci naaju bi mu teg ci wax ne innama al a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa tam ab xaaj la ci benn waxtaanu yonent bi boo xam ne bi waxoon na ko ci jamonoy gàddaay ga ñëw ci tirim ba noppi doo ñëw doog a ñëw ci maanaam bi innamal amalu naka dongu jëf yi binniyaati ñi ngi aji ci yéene yi maanaam wa innama te naka dong li kulli in ñeel na bépp nit maa la nga xam ne na ko maanaam yi xëy na buñ ko bëggee andi danañ delluwaat ci li sababoon yonent bi waxoon hadis bi jamonoy gàddaay nga dafa am ba gàddaay xewee eh, jóge Màkka dem Madina eh, dafa am nit ku nekk la la daan tax a gàddaay da nga gis ko xam ne daan ngir pas-pasam sooy pas-pasam sooy lislaam nga gis ko xam ne daan gis soxna rafet rek ngir gàddaay ngir moom gàddaay ngir moom ngir jot ci moom wala alal ju mu bëgg a jot gàddaay ngir moom moo tax yonent bi ne woon jëf ci yéene la ko yàlla dig lay aju maanaam fayu jëf moo tax lu waay yéene rek ngay am yoon di teg ci ne fa man kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin ke yankixuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi koo xam ne dafa gàddaay nag ngir àdduna joo xam da koy jot ci gàddaay ga wala jigéen gu muy takk itam bu ko yàlla di fay ca gàddaay googa mi ngi koy pay ku gàddaay ngir loola mu gàddaay muy wax ju am solo yoo xam ne day matale mbooleem lu doomu adama def ci àdduna rek lépp looy def rek suñ borom yéene ji bi nga koy def yéene ji nga ci amoon lay xool li ngay def bu bu bu baaxee lu tuut tuut boo ci amee yéene ju rafet mën nañ la cee fay yéene joo xam ne loo xam ne riyaay bi dana jéggi dayoo nit ki sax léeg-léeg mu mu yéene lu baax juum def lu bon waaye lu baax la yéene woon dañ koy fay tiyaabay ku def lu baax waaye léeg-léeg nit ki def loo xam ne lu baax la ci kaw nii waaye nag yéene ji rafetut su boobaa duñ ko fay pay ku def lu baax loola waaye yéene jëm ci yéene woon donc la ñuy xool mi ngi mel ne gàddaay rek jóge ci réewum réewum dem ci réewum julit loolu ci kaw nii lu baax la waaye fekkee nag alal la tax nga di ko def kon duñ la fay ku gàddaay ngir sowe waaye dañ lay fay yoolu ku gàddaay ngir wuti alal ngir wuti alal wala ngir wuti àdduna kon loolu lu am solo la kon loolu mooy maanaam innamal amal nag doomu jëfi bi niyaate mi ngi aju ci yéene yi ñi ngi aju ci yéene yi mooy ñi ngi aji dong ci yéene wa ma te naka dong li kulli mri ñeel na bépp nit ma li nga xam ne waa yéene na ko innama ci arab ci làkku arab ci naxu dañ koy wooye xarfu xasr mooy araf boo xam day ñëw ngir takk dara ci dara maanaam yi jëf yi ci boppam la jël takk ko yemale ko képp ci yéene yi nga xam ne ni yéene yi toll rek ak lii dëgg-dëgg yéene yi rek noonu la jëf yi di toll bayik jëf yi di toll ba li tam noonu la mooy yéene nit ku nekk daal li li muy am ñi ngi koy yemale képp képp ci ni mu yéene mooy wa ma naka doom kon maanaam mi moo mooy loolu sëriñ bi teg ci ne wa fil yi nekk na ci xereñ ya xereñ ya ma nag buñ ko waxee mooy wax ju jub yoo xam dafa tege fu mu war a tege nga xam ne boo ko boo ko jëfee mu teg la ci yoonu njub waaye boo mooyee la teg tegtale itam da nga jàdd ak njub loolu mooy ak ku ko mën di wax nag loolu mooy xekk xikma mooy ak xereñ kon nekk na ci xereñ yi wala nga ne wax yuñ xereñee ñu wax ne man talaba ko sàkku al amra mbir ma wajada tem farlu wajada mu am ko mooy lu waay di wut maanaam mooy lu waay di wut rek boo ca farloo rek te wute ko fa nga ko war a wute boo ca farloo te sax ci rek te dëggu ca wut ga nga koy wut rek suñ borom dana la ko may moo xam lu baax la wala moo xam ab safaan la suñ borom moom dafa teg ay sabab yoo xam ne mooy àggale ci mbir yëpp soo jaaree ca sabab ya mooy yoon yi ci àggale te dëggu ci rek suñ borom daana ko may wa man xaraa te ku fëgg albaabu bunt ma wala jamu nuur ci fëgg gëtam wala jamu tàbbi ca lu juj mooy nuur ci dara mooy israr mooy sax ci dara rek bañ caa jóg maanaam ku dem ci bunt boo xam ne bunt lu bu ñuy jaare di di di jàll teñ di ko ubbi nga taxaw fa nga war a taxaw fëgg na nga war a fëggee te sax ci rek bañ a bàyyi des na la fekk ubbil la Hmm. loolu mooy lu waay wut di wut te wute ko fa nga ko a wute wut ko na nga ko war a wute boo ca saxee te jógoo ca da ko am loolu ak soññee la gu am solo goo xam ne eh, kuy doog a jóg di wut moo xam da ngay wut xam-xam wala looy man di wut boo ko déggee dana la soññ mu wax ne woo fii nekk na ci ñoom mooy woo la bëgg a wax eh, ci xereñ yi mooy wax yuñ xereñee wax ne man am saka ku jàpp mooy ku téye boppam anil fa dóore ci caaxaan yi odda limees ko min arbaabil uquli mbokk ci waroom xel yi fudul maanaam buñ la ko bëggee leeral ñaari ñaari ñaari wax yooyu ku téye boppam ci ay caaxaan bu ñuy lim xel yi boole ko ci lépp loo xam ne maanaam amul la njëriñ ci sa àdduna njëriñ lu yoon nangu wala amul la njëriñ àlaaxira loolu la ñuy wooyee fudul donte araamul sax nee na ku boppam ci koo xam ne foo ko fekk daal day def lu amal njariñ ci àdduna te te yàlla te lislaam nangu ko wala muy def loo xam ne te loolu sax foo ko fekk mooy lu lay amal njëriñ àllaaxira rek ak loo xam ne da koy amal njëriñ àllaaxira kooku bu ñuy lim borom xel yi dañ ko ci boole ndax xel moom xel mu rafet li muy laaj mooy foo toll nekk ci lu amal njariñ kon boroom xel daal dëgg-dëgg foo ko fekk daa war a nekk ci lu ko amal njëriñ loolu rek la wax ji tegtale mu ne wa fiiha nekk na ci ñoom waxuñ xereñ yi man koo xam ne laa yasqitu du merloo nafsahu bakkanam wala boppam laa yurdi du gërëm lo rabbahu boromam lol mooy firi bi maanaam itam mooy koo xam ne doo sa bakkan lu ko naqari foo toll sa bakkan lim bëgg rek nga koy defal kenn mënta am mukk nag nga defal yàlla lu ko neex soo bëggee di am ngërëmul yàlla defal yàlla lu ko neex del noo mën a def da ngay mooy sa bakkan li ko di seet li nga xam ne neex na yàlla te naqari sa bakkan nga di ca saxal sa bakkan di ko ca tàggat ba mujj mu topp la ca nekk nekk ca sab jaam su boobaa nag ngay doog a am ngërëmul yàlla nga xam ne day mujj li neex yàlla mooy mujj neex sa bakkan waaye su fekkee ne ci njëlbeen li neex sa bakkan doo ca doo rek ngay sax boobaa euh, doo doo mujj am ngërëmul yàlla mukk ndax li li neex yàlla dalay soof lool wa fiha nekk na ci ñoom waxuñ xereñee ñu wax ne man faala ku def maa li nga xam ne saa neex na ko laqiya mu taseeg maa loo xam ne saa naqari na ko hmm. koo xam ne li la neex dong ngay def da nga foo foo toll da gis lu la naqari ci sa bopp te doo ko mën a faj waaye koo xam ne nag dangay ngay li gën nga di ko def moom suñ borom fu mu toll di la defal la la la la gënal te la la gënal rek mooy doon la lay dimbale ci topp yàlla wa fiha te nekk na ci ñoom waxuñ xërëjee ñu wax ne man laasama ku taqoog mujahadata nafsihi xeex ak bakkanam faaza texe na inda xululi ramsihi fa wàccug bàmmeelam wax nañ ne tam koo xam ne foo toll da ngay xeex sa bakkan di xeex ak moom ngir not ko ngir forcer ko ngir tàmmuloo ko li nga xam ne moom la yàlla bëgg te bëgg ko moom nee na kooku day àddunaam dana ci du ci dund lu ko neex waaye saabu làqoo suuf rek daal texe ba faaw di dund dund koo xam ne xel du ko daj ci neexaay wa fiha nekk na ci ñoom wax yu ne man taaba ku topp ar rasul yonante bi naa la mu am xay rasul ngën ji laaj ñu wax ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam day ku ko topp lépp lu doomu aadama di bëgg ci lu baax àdduna ak alaaxir am lépp lu muy ñaan boroom da nga ko am ndax yonante bi moom la yàlla jël teg ci loxoom yoon wi mu mu yoon wi nga xam ne ku ci jaar danga am tax ak àdduna ak tax ak kon ku ko topp rek ngan ji lu ñuy sàkku ngën ji lu ñuy laaj da ko am. wa wax na جامع هذه الحكم اجد جليلي حكم انا ميل واخين خيرني واخنا بيتا واحدا او بيت وديوان معنا وين بيت في هذا المعنى جمل معنى جبري جبري جبل واحد نانا كيغا خامني مو داجالي واخين خيرني يوي مولا جانغالون سي غيناو تامليكو سي من طلب الامر وجد وجد ما man taabaa rasul naa la xay rasul mbooleem waxuñ xereñ yooyu ki ko dajalee ci ab téere am na wenn bayit wu mu wax woo xam ne mi ngi jëm ci maanaam menn maanaam mi nga xam ne ci la ci la ci la xikam yooyu jëm te mooy dëgg rekk moo am solo ku ci nekk coono ba mën dajal tam ci àdduna boo boo wujee sa borom rek daal di nopp noppalu ku ci nekkut tam loo mën di dajal tam ab coono rek la te ab coono ngay mujjee itam maanaam moomu wax na ci moom moom kooku dajalee xikam yooyu aw bayit waxuwa te moom mooy bayit bi mooy wa kullu képp koo xam ne saama woor na ani rasaili ci ay caacaay maanaam wulis ay jikko yu bon fa na kon naka moom yuftiru dana doge bil fadaili ci ay ngëneel maanaam ci ay xéewale suñ borom mu wax ne maanaam képp koo xam ne bi ngay dund ci àdduna dangaa téye sa bopp bañu bañu lépp loo xam ne jikko yu bon la nee na àdduna si neexaay yi fi nekk yëpp te dëppawut bëgg-bëgg bi nga nangu ko muñ mettit yi fi nekk yëpp te dëppoo bëgg-bëgg borom bi nga nangu cee euh, euh, saxal sa bopp nee na kooku day suñ boroom dana ko dana mujj ay xéewal yoo xam ne ci suñ boroom lay jóge te mooy ginnaaw bu euh, wujjee boroomam rek day daal di nekk ci ak texe ak i ngëneeni yàlla mu wax ne mubaarakul ibtidaay luñ barkeel ab tàmbali la moom téere bi wala nga ne yàlla nay luñ barkeel ab tàmbali may muunul intihaay luñ barkeel ak àgg la wala nga ne yàlla nay luñ barkeel ak àgg mu wax ne Euh, walahu te ñeel na ko moom ki dajale wax yu xereñ yooyu aydan ba tey am na maanaam moom ki dajale wax yu xereñ yooyu am na laata muy wax lim am nag lim li ko ñeel mu ñaanal ko daal di wax ne ziida yàlla na doolees ko faydan ak baawaan wala ak walangaan maanaam yaatu xewal am na baytun aaxar bayt waneen fi hada almaana ci mile maana yanzimu day way maana qawli cheikhihi maanaam waxi sëriñam ba radiyallahu yal na yàlla gërëm anhu ci moom nee na moom sëriñ boobu dajale wax yuñ xereñe yooyu ci maanaam moom ñu waxoon léegi am na waneen bayitam wum ci ci wayaat boo xam ne dafa fekk sëriñam ba mu waxoon ay wax mu wëlbatiku nag jël wax yooye woy ko waxu te mooy maanaam waxi sëriñam ba mooy dawlatul baatili ngurug neen saatun aw waxtu la maanaam assala mooy ab diggante la rek ci jamono ñu gàtt wa dawlatul xaq te ngurug dëgg ila saa ba saala maanaam ba yowal xiyaam la mu daal di koy way daal ne al al xaqu aji sax la wa amal baatilu daal neen nga wa in ala ak doonte kawe na fa zaaxiqun kon aji nax saay la wa saafilun te aji suufe la sëriñ ma dafa wax ne nguuru neen de ab diggante la rek maanaam doole ji nga xam ne suñ borom dana ko jox mbindeef te tegewut ci dëgg loolu doole jooj lu mu réeree ci ab diggante rek lay doon mu daal di jeex waaye nguurug dëgg nag mooy doole ji suñ borom di jox mbindeef dem tege ci dëgg moom loolu la jee doon doon joo xam ne ju sax lay doon ba faaw. moom nag mu way ko nag daal di wax ne dëgg de lu sax la neen nag moom lu mu kawe kawe itam day mel ne day jékki-jékki ne mes rek day jékki-jékki daanu ci suuf kon loolu mooy euh, xikam yi nga xam ne sëriñ bi tàmbalee na ko naa ñu xadaayil xaaj muy ay xikam yu am solo yoo xam ne ku ko seetantal daana suuf ci yoonu dëgg daana soril tam yoonu neen موحن بسم الله ما نتام لتري الله الرحمن أجي يرمي أدنى الرحيم أجي يرمي على آخرة لير لون نيلو أجي معنا بسم الله الرحمن الرحيم كون داني جار تفير مرك وصلى يعني خير الله يا تعالى كمنا على سيدنا جسن سانغفي محمد محمد وآله أكتنيونيم وصحبه أكأن الله الإسلام wa te yàlla musal leen tasliman ak musal ginnaaw bu mu tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim da cee teg tàmbale ci ñaan xéewal ak mucc mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay ñooñam ak ànd saxaabaam ñaari tàmbali la ko def tàmbali euh, tàmbali boo xam ne ay du ay way ak tàmbali tarjumaan tàmbali bopp téere bi nga xam ay xekkam la ko def ak tàmbali boo xam ne moom lay tàmbalee way bi na euh, maanaam way way bi ne qaala wax na ibnu cheikhihi doomi sëriñam ba allazi ka nga xam ne laa yaxmadu du sant fii nafsihi ci boppam si wasmihi lu dul aw turam muhammadun mooy muhammadu bamba nee na muhammadu bamba ahmadul xadim mi nga xam ne baayam moo nekkoon sëriñam tam doon jëmm joo xam ne gisul ci jëmmi boppam leen loo xam ne laañ na mu sant ci boppam mu gisee ci boppam lu muy sant boppam daal mooy aw turam tur bi nga xam ne moom lañ ko tuddee moom la gis ci boppam loo xam ne dana bu dee sant ci boppam dara moom lay sant te mooy Muhammad mi nga xam ne ci moom la yàlla jaarale xéwalam yëpp kooku nag mooy Muhammad Bamba mooy wax. mu ne alhamdu cant lillahi la na yàlla si mi nga xam ne xadi satara daa nëbbu daa suturaal maa ibi samay sikk wa kaana te nekk na lii ñeen ma wan nasara te dimbali na ma nee na yàlla moo yeyoo ñu sant ko jël xéewal yëpp delloo ko ci moom di ko jëfandikoo ci li ko neex yàlla moom mooy ki xam ne li nga xam ne man Sëriñ Tuubaa jàppe naa ko ay sikk sama digganteeg moom suturaal na ma ba euh, maanaam euh, na nëbbal na ma ko ñu bàyyi ne nag euh, sikk yi xam ne moom lañ ci yàlla di jàppe sikk ñun nuti ordinaire yi rek buñ buñ ko yàlla baaxee woon dañ koy def ak cant nee na yàlla moom mooy ki nga xam ne Sëñ Tuubaa nee na nekkal na ko di ko xëccal njëriñ di ko jañal lor te may na ko ndimbal tam dimbali na ko may na ko ngañ laay subhaanahu tudd naa sellam nga rabban mbir muy ab borom kariman muy aji tedd jaada bopp tàbbi na liyee ñeel ma bi ma ci loo xam ne xan xaare daa wommate di sukkur yi jëme ci sant ko mu wax ne yàlla moom ak ak di borom boo xam ne ku tabe la ku tedd la koo xam ne man Serigne Touba may na ma loo xam ne tax na ma di ko sant may na ma loo xam ne tax na ma di ko sant fu ma toll di jël sama lépp di ko delloo waxu moom allazi mooy ki nga xam ne jaala def na xusnal adab rafetu teggin yux fi muy nëbbu jahalatan ak réer wa xub xanasa bi ak bonuk askan nee yàlla mooy ki nga xam ne def na rafet teggin yu rafet bu nekkee ci nit lépp lu nekkoon ci moom ci ak ñàkk xam wala bokk ci askan wax ne baaxut du feeñ ku taseeg moom bu jëflanteeg moom day jàpp ne moo fi ëpp xam-xam dañuy jàpp ne ci gën a baax ñi gën a baax ci la bokk kon teggin lu am solo la ci nit teggin nag bala ñoo jàll dara lu dul maanaam mooy sellal rek lépp looy def nga def nga seet anam gëm gën a selle gëm gën a rafete gëm gën a mate gëm gën a dëppoo ngërëmul yàlla nga defe ko noonu loolu rek mooy teggin moo xam ci sa digganteeg sa morom la wala sa digganteeg sa morom yi ma sa digganteeg sa bopp waxas sa jagleel na ahlal ilmi ñuñ xam-xam wala aadaa bi ak teggin yi bil fawzi ca taxe ga maanaam ci gañe ga bi sawaab ca njub ga wa sawaab ak yool ba ne yàlla ñi nga xam ne dañoo am teggin dañu am xam-xam te di ko jëfe mooy ñu am teggin rek ndax nee naa léegi teggin moom mooy xam-xam dëgg-dëgg nga jëfe ko jëf jëfinu mat rek léeg-léeg na nga gis ko am teggin te te jàngut leen li koy waral mooy day ne ci wetu koo xam ne da koy yar li nga xam ne moom lañ jàngale ci téere yi mu di ko ci yar ba mujj da koy jëfe ba mel ne dafa am xam-xam kon nee na yàlla ñi nga xam ne dañoo am euh, teggin yu rafet Euh, dañoo am xam-xam te di ko jëfe maanaam te am ay teggi ñooñu yàlla jagleen na leen ñu ñoo xam ne dañuy nekk ci ak njub ba noppi am ngërëmul yàlla am am tuyaaba yàlla loolu ñi am xam di ko jëfee rek te mooy ñi am xam-xam te am la ko yàlla jagleel mooy am ak njub ak tiyaaba al fawzu mooy gañe gañe ak njub maanaam am ba noppi am yàlla ne ci siraatal mustaqim ba nopp suñ borom nangul la ko di la ci fay tiyaaba ju mat ju màgg mais eh, loolu suñ borom ñi am xam-xam te am ay teggin la ko jagleel su ma topp asalaatu xéewal ga bi salaamin ànd ak musal raaqin guy aji yéeg alal lasi yàlla nekk ci ki nga xam ne yonent bi nga xam ne irtaqaa yéegoon na alal buraaq ci fas ñu woy al buraaq sayidina daay mooy suñ sang bay aji woote ilal xalaax jëme ci bindekat ba bindaakoon ba mooy yàlla mi aji bi bindekat bi ahsanil aadaabi di woote ci teggin yi gën a gën jaar fi teggin ci jikko yi muhammadin mooy muhammad wa alihi ak ñooñam ña assubaaq ña di woy jiitu wa saxbi ak àndandoom ci lislaam mooy saxaaba mi alxaabir ña di woy làq fadl albaaqi yi ngëneelul yàlla mi aji des nee na ginnaaw bi nag maa ñaan yàlla mu wàcc xéewal gu ànd ko musal gu kawe ab dayo mu wàcce ko ci yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne yàlla mayoon na ko daraje mu yéeg ci fasu alburaaq mooy yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne mooy woo doom mbindeef yëpp jinne yi ak doomu aadama yi ñi ñu war a woo ñëpp moo leen di woo jëmale leen ci jaamu yàlla wéetal ko du leen woowee nag ci wax ju bari rek wala coono bari waaye mi ngi leen di woowee ci jëfee li li ko suñ borom jàngal te li li nga xam ne mooy xam-xam dëgg-dëgg mu di ko jëfe ci jëflanteem digganteem ak ñoom. nee na loolu mooy ci la di wooye mooy teggin yu rafet teggin yu rafet yi muy am ci digganteem ak mbindeef yi ak digganteem ak boroomam nee na teggin yooyu ci lay wooyee nit ñi ak mbinde mbindeef yëpp jëmel leen ci yàlla teggin yu rafet yi nga xam ne da koy am ci jikkoom loolu kon dañ ciy dégg rek woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li suñ borom ne udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawisati al xasana xikma day làmboo wax ju tege fa mu war a tege waaye day làmboo itam jëf ju tege fa mu war a tege loolu nag mooy doon mooy mooy dugalaale teggin yu rafet ci jikko yi mu kon mooy yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne moom euh, moom la yàlla baaxe woon mu am ay jege ñaale ñu ko gëmoon ñoo xam ne amoon nañ daraje jege ko ba noppi am daraje nag njëkk a dugg ci lislaam moo tax ñu jiitu woon ñu baree bari ñu dul ñoom ñu amul woon daraje yooyu mu ñaan yàlla it mu wàcce <clears throat> jul xéewal ak musal ci saxaabaam ñu àndoon ak moom ci lislaam nga xam ne yàlla mayeen loo leen ngëneelul njëkk a gëm bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag yonent yàlla muhammad ñooñam ñooñu ak saxaabaam yooyu jiitu gi ñu ci lislaam am na lu mu leen juraloon loolu mooy li muy a ñëw fa moo tax saxaloon nañ an nusxa laay ga bila shiqaaqi ci lu dul ŋaayoo ci lu dul ak ŋaayoo it ngir malaku moomoon nañ a nufuusa bakkan ya bistirqaaqi ci jaamuloo faa gi day waral ne day wax ne day tekki ne fa asbatu gim wax moo tax maanaam li juddoo ci jiitu gi jiitu ci lislaam njëkk gëm yonte bi am na lu ci juddoo ci ay ngëneel mooy loolu waraloon nañ ñu saxaloon laay biire laay biire dañoo wax ne danañ ko def yàlla di ko def yonent bi di ko def euh, njiiti jullit ñi di ko def mbooleem jullit ñi laa biire goo xam ne àndut ak ŋaayoo kon laa yàlla mooy gëm ko te topp ko ci anam gu sel te doo ko mooy ci mukk àndut ak ŋaayoo mooy bilaa shaqaaq yonent bi it kasaalika mooy gëm ko topp ko teg ko fan ko war a teg te doo ko mooy ci mukk te yéene ko yéene ji rafet te di ko defal lu rafet ci wax ak ci jëf labiré mi mi njiiti jullit ñi kasaalika noonu rek la demee <clears throat> mooy di leen topp jox leen jox leen daraja ja leen war a jox yéene leen te leen lu baax di leen dimbali. labiré amatul muslim mooy mboolem leen ñi nag moom tamit day làmboo <clears throat> labiré leen ci sa yéene mooy yéene leen yéene ju sell di leen wax wax ju rafet ju sell te yàlla tax te leen ko defal te yàlla tax kon mboolem xeet labiré yooyu ñoom saxaaba yi ak ñooñu yonent bi ku gëmoon saxaloon nañ ko ba niñ fi jógee te boolewuñ ci woon ak ŋaayoo kenn ci yàlla wala yonente bi wala njiiti jullit ñi wala jullit ñi li waraloon nag dawul ŋaayoo kenn ci ñooñ ñu la dañ daan laabire te dawul ŋaayoo mooy li waral ŋaayoo ak ñàkk laabire mooy topp sa bakkan mooy sa bakkan moom la di la def loo ak di la bàyyiloo te ñoom dañoo moomoon seen bakkan dañoo wulle woon seen bakkan di ko di ko di ko tàggat ci li yàlla bëgg ba mujj seen bakkan nekk seenu jaam ñu mujj moom ko nga xam ne fuñ ko wammat jëme rek fa lay wammatu jëm moo tax mu ne faas batu moo tax ñu saxaloon an nusa laaye biir ko bilaa chiqaaq ci ludul ngaayoo is ngir malaku moomal nañu an nufu sa bakkan ya bis tir qaaqi ci jaamuloo jaamuloo mooy di jëfa di jëfandikoo mbindeef mi ni ñuy jëfandikoo ab jaam di ko defloo ci sañ bañ mu di la topp ni ñuy toppee ab jaam mais ñoom noonu lañ defoon seen bakkan ci yoon yàlla di ko jëfandikoo ni ñuy jëfandikoo ab jaam lu yàlla bëgg rek seen bakkan du nangu waaye dañ koy forcer ni ñuy forcer ab jaam ba mujj dañoo moomoon seen bakkan nga xam ne fu fu yàlla soxlaa rek dañuy wuyu ji te seen bakkan dinañ cee topp. moo tax loolu tam am na lu mu leen juraloon mooy faat la foofu moo tax sànkoon nañ al amwaala alal ya bil infaaq ci ci dépensé bilaari a innaasi ci lu dul ngistal nit ñi wan nifaaqi ak <clears throat> nafiq kon moom ngi moomoon seen bakkan <clears throat> waraloon na xam nga alal moom dafa sax ci xolu nit waaye moom ngi moomoon seen bakkan tax na alal yi ñu amoon yëpp dañ ko daan sànq ci yoonu yàlla di di ko dépense ci yoonu yàlla te yàlla dong moo taxoon nag dawuñ ci jublu ngistal jublu ci nit ñi gis leen wala ñuy am daraja ci nit ñi dawuñ ko def itam teg ko ci ak naa naafeq nga xam dañ koy wane te nekkul ci ñoom waaye dañ ko daan def te yàlla rek tax te dawuñ ci jublu kenn ku dul yàlla ngëneel yi ñu amoon ci ànd gi ñu àndoon bi njëkk koo gëm ak moom gi ñu moomoon seen bopp waraloon na ñu nga ngëneel lii di bëgg ñëw mooy wathiqu dëgërlu woon nañ mooy wóolu woon nañ amoon nañ confiance bi naafi razaq ci aji jëriñu ji di wërsëgale kan bi wërsëgalaa kon bi mooy yàlla tawakkulan ngir wàkkirlu ali ci moom maanaam ngir sukkandiku ci moom fil arzaq ci wërsëg yi nekkoon nañ Euh, zawin tilaaq di borom ak boy ilal oxra jëm alaxira is ngir waajihu jàkkaarloo woon nañu jàmmaarloo woon nañu ak darata wujju wa te mooy àlla euh, biir talaaq ci fase lam yetruku bàyyiwun woon li zoxrin ngir njàqare aw imlaaqin wala ak ñàkk amran digal minal mudabbiril xalaaqi mu tukkee ci lu ci aji tëral ji aji bi bal an andi fi nekk sabatu saxoon nañ fil amri ci ndigal li bil ashwaaqi ànd ak cof en ya lam yulhihim itteelu leen woon anhu wulis ko moom ndigalu yàlla xinal aswaaqi koomu marché <coughs> dafa wax ni ñoom saaba yi bokk na ci ngëni leen yàlla mayoon ak ñooñ yonent bi ñu ko gëmoon bi ñu àndee yonent bi ci njëlbeen gëm ko taqoog moom tax ñu am ngëni lu di topp yàlla ak yonent bi ak ñooñam di laabire ñëpp loolu waraloon nañu moom li ko waraloon te mooy dañoo moomoon seen bopp wulli seen bopp ba taxoon na bokk na ci ngëneen yi leen lool jural ba tey fu ñu toll dañ daan jënd seen alal di ko def ci yoonu yàlla te yàlla tax bokk na ci ngëneen lool ba tey dañoo wóolu woon yàlla mi nga xam ne mooy mooy wërsëgal nit ñi moo lu ku am njariñ moo la ko moo la ko jox dañ ko wóolu woon xam ne lépp ci moom lay jóge njariñ ci moom lay jóge wërsëg ci moom lay jóge ba tax ñu wóolu ko li ko waral loolu mooy dañoo sukkandiku woon ci moom wóolu wakkilu ci moom xam ne njariñ ak ak wërsëg lépp ci moom lay jóge nee na ñoom bokk na ci ngëneel leen yàlla baaxe woon dañoo jógoon rek jawale alaaxira li ko ndax li waraloon ñu jóg jawale alaaxira mooy wujjoo alaaxira wi àdduna dañ koo fase woon bàyyi ko bàyyi gu mat gu dëggu bàyyi àdduna alaaxira nag mooy bàyyi ko ci sa xol nga xam ne yàlla dong mooy ne sa waxtu wu ne moom rek nga yëg taarub àdduna bi ak neexaay bi lépp ak melokaan yi mu am lépp ab jaarukaay rek nga koy def la ci itteel ngir nga mën a àgg ci yàlla ngir mën a am ngërëm moom rek loolu nga itteewoo ci subaa ngoon waxtu wu ne lépp ci jëfandikoo it da koy jëfandikoo ngir mën am ngërëmul yàlla ak ngir mën a am texe àdduna ak alaxir loolu mooy fase àdduna nee na loolu waraloon na nga ne liñ amoon ci jiitu gi jiitu woon ci yonent bi ak not giñ ba notoon seen bakkan waraloon na euh, njàqare mustatax wala ñàkk bu metti mustatax yàlla digal leen dara bañ bañ bañ bañ lànk ndigal lool bañ ko def xam nga nit ki daan na ci njàqare lu dar wala ñàkk ko tax na <coughs> tax du du du du du du du yëg ndigalul yàlla maanaam ñàkk metti gee koy not ba du yëg ndigalul yàlla du tal def ndigalul yàlla nit da nekk <coughs> lu metti li not ko ba du tal ndigalul yàlla waaye ñoom ñoom nag euh, euh, liñ jiitu ci lislaam am daraje yi takkoog yonent bi am lu mu def ci ñoom tax na loolu moom dalu leen woon ñoom ñoom lu ñàkk ma sa metti metti ak ñàq ñàqare du tax rek du tee rek bu yàlla santaane lépp dootuñu yëkkati dara lu dul yàlla moo tax ñoom nee na li amoon kay mooy ñoom ndigalul yàlla li dañ caa nekkoon ba noppi boole ci nag maanaam ànd ceeg cofeel waxuma la nekk ci ba noppi maanaam yàlla santaan nga nekk ci ngir maanaam euh, da nga ñàkk da nga xam ne waroo da nga ko war a def rek waaye amu ci cawa amu ci cawarte waaye ñoom ndigalul yàlla dañ ci daan nekk ba noppi mu gënal leen lu moom nga xam dañ ci am cofeel bu def ndigal yàlla jotee <coughs> maanaam luñ mën di nekk loolu dootuñ ko yëgati ndigalul yàlla ca newoon ba noppi am ci cofeel nga xam ne cofeelu ko xol lañ ci am ni ngay maanaam ami cofeel ci loo gëj a gis te bëgg ko boo ko gëjee gis ni sa xol di xëccoo jëm ci moom nee na ñoom ndigalu yàlla noonu lañ ci daan buñ ci daan nekk cofeel googa nit di am ci lu nam wala mu bëgg koo gëj koo gis te bëgg ko cofeel googu muy am nee na ñoom ndigalu yàlla buñ ci daan ne lu luñ mën di nekk ci ay naqar ak njàqare nee na du tee cofeel googu lañ ci am nee na ñoom euh, marché yu woom yi nga xam ne day indi ay njëriñ yu baree bari di leen indil ay koom nee na musta tax nag maanaam yàlla sant leen bañ taayal ci ndigalu yàlla la lu leen lu marché bari bari bari ay ay bénéfice waaye lu marché yi bari bari maanaam am koom am njaay lu mu fa bari bari lu am bari bari ay njëriñ du tax rek maanaam du rek bu yàlla santaane ñu fàtte lépp euh, daw jëmale ci ndigal yàlla yi am ci cofeel gu mat sëkk loolu daana jëm réy la woon boo xam ne suñ boroom baaxe woon na ko euh, saxaaba radiallahu taala ak ñooñu yonent bi te loolu lépp juddoo nag ci taqoo gi ñu taqoo woon yoon yonent bi njëkk koo gëm akrim bihim akrim bihim mooy ak ak ñoo tedd wala nga ne akrim teralal bihim ci ñoom tirin yu bari la am wala nga ne akrim kaawteefu tedd nga bihim nekk na ci ñoom maanaam mi daal mooy akrim bihim ak ñoo tedd min saadatin di ay sang ci ay sang xuzaaq yu di way ñaw xaasu yooyu làqoon nañ alxalaawata neex ga neex ga minal mazaaqi mu tukkee ca mos ga la mu tukkee ca cafka ga alayhim yàlla nekk ñoom ridan ngërëm bi ci moom ulaaqi laay taseeg man yonent bi nga xam ne ixtawa làq na siyaadatal itlaaqi càngoog boyal ga ñun dana ñëw ci maana ami <coughs> muhammadin muhammad sala yàlla na xéewale aleykum albaax yàlla mi aji des wa ali ak ñoñam ñi wa saxbihi ak àndoom ci lislaam al atbaaqi ña di ay cause wala ña di way dëppoo dafa wax ni ñoom ak ñoo tedd ñoom saxaaba yi ay sang lañ ñu kay woon ci ay jikko lañ woon ñoo xam dañoo amoon xel lool nee na bañ mosay jaamu yàlla xam lam saf dañ caa dëkk ba mujj cafkat jaamu yàlla rek lañ yëg waaye yëgatuñ <coughs> leen lu dul cafkat yàlla la ko waral mooy dañoo mos jaamu yàlla sax ca ba mujj yëgatuñ leen lu dul cafkat jaamu yàlla ak wéetal ko ak topp ko mu ñaanal leen yàlla mu wàcc ngërëmul yàlla wàcc ci ñoom ngërëm loo xam ne lu rëy ab dara dara dayo lay doon ba tax na moom sëriñ bi nee na ci barkeel ngërëm loolu ak dayoob ngërëm loolu maa ngi yàlla suñ boroom may ma ma taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tase gi nag mën naa nekk taseeg àdduna ak taseeg alaaxira moo xam li mu ci jublu yonent bi nga xam ne yàlla may na ko moo féete kaw ñëpp féete kaw goo xam ne tënkuñ ko ci ñii wala ci ñale mooy siyaadatal itlaaq ca ngoog bàyyal mooy yonent yàlla Muhammad mu ñaan yàlla mu wàcc ci moom yàlla mi aji des mu wàcc ci moom xéwalam ci moom ak ci ay ñooñam ñi ko gëmoon ak ci àndoom yi mooy saxaabaam yi ànd na moom ci lislaam ñoo ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay atbaaq atbaaq mooy ñu ñu dëppaloo ñu toppante xam nga saxaaba yi dañoo woot dañoo toon dañoo dëpp dañoo toppante woon ci daraja dañoo dëppoo woon maanaam loolu tax mu wooy leen al atbaaq nga xam ne kenn ku nekk da ngay ka war a jiitu ci daraja da nga koo jiitaloon topp ci ginnaawam waaye dañu dëppoo woon euh, ci topp yonent bi sallallahu alayhi ci topp yàlla ci dimb dimbalante ci lu baax kon al atbaq moo loolu mooy mbokk nañ ci maanaam ñu ko mën a déggee ndax al atbaq danañ ko euh, wooye samaawaat yooyu nga xam niñ dëppaloo asamaan soo weesu teg ci jëjëj des tabax daal ab cause lañ waaye lépp lu dëpp tegal lantoog moroomam rek lu mel ne ni asamaan tegaloo wala ba ci sax euh, li ngay gis ci dund ngi ñu dund ni ci àdduna tabaqaat yi ñuy tabax ci euh, tabax yi ñu xaw xam ni yooyu yëpp at baax lañ koy wooyee waaye maanaam mi mais al at baax buñ ñu ko waxee mooy al al al al mutawaafiquun rek mën nañ ko mën naa yor maanaam mooy ña woy way dëppoo ne dañoo dëppoo ci topp yàlla dëppoo ci ka jiitu jiitu ka a topp topp ci dëppoo ci dimbalante ci ragal yàlla la ñuy xamle ne kon lii fii lañuy tënk jataay ñaareel bi kon ñu ngi leen di euh, ñaanal yàlla mu may leen ak dégg ak topp